wa taqdi lana biha jamia alxawaij wa takuna lana biha waliyan fi dunia wal axira ya rab anta waliyuna fa niama almawla wa niama alnasir ayuha almushahiduna alkiram fi daxili sénégal wa fi xaariji alwatan nuraxibukum kalaada fi kulli yawmi aljumaa wa naqulu lakum marhaban ahlan wa sahlan bikum ha nahnu alyawma fi intizaarikum bi diqqatin wa surur wa baada naqulu lakum salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di ziare ci àjjuma ji di ziare kilifa diine ak kilifa aada yi di leen ñaanal yàlla jàmm ak sutura waaye di ziare ñi ci hôpitaux yi te wér di yàlla na leen yàlla delloo seen sago di ziare ñi nekk bitim réew di daan seeni doole bëgg rek lu ñu indil seeni njaboot yàlla na leen ko yàlla yombalal bi ahsanil wujoo mbokk yi ñu ànd ak yéen comme niñ ko daan defee àjjuma bu jot ci waxtu wi eh, wa nashkurukum gaayata shukri li xusni mutaabaatikum maana fi kulli yawmil jumaa ñu jël ki ci ligne bi defe naa am na kuy woote ñu jël ko te ñëw salaamaaleykum wa rahmatullah allo allo waaw bismillah waaw man daa mhm. am lu ma géntoon laa bëgg mu firi. waaw. damaa géntoon damaa ñibbi dëkk ba. Hmm? damaa géntoon damaa ñibbi dëkk ba. da nga. géntoon damaa ñibbi dëkk ba. nga gént. damaa ñibbi ah, dëkk ba ah, nga ñibbi seen dëkk ci biir kër gi ñu daal foo. Mhm. ci safara mais safara bi moom dafa am benn cin bu ñu teg ci kaw. Mhm. waaw beneen bi tam dama géntoon maa ngi ci kaw mel ni montagne mais maa ngi seenu ay gaynde sama kanam mm-hmm. waaw beneen bi dama géntoon nee na dañ ma yónni ci président mais fi ma yëg moom dafa kawe man na moom gisante nañ ko mais jotewuma ko jox liñ ma yónni pour ma jox. yaakaar. ah. yow la woon. man kese la woon. Maguette. man kese la woon. man ah, kese la yónni woon ci loolu nee na ci président lañ ma yónni pour ma am lu ma ko jox quoi mais gisante naa moom mais jotuma koo jox. kiñ la gisoo ko. non gis naa ko président bi gis naa ko. Mm-hmm. mais jotewuma koo jox li ñu li ma ñu ma jox pour ma jox ko. Mm-hmm. waaw beneen bi moom damaa gént nee na dañu maa solal yi benn yëre militaire. taw bi di taw quoi. yére bu ñuy jaay. waaw dégg-dégg bi xaw na bu mënoon àndaat ak ñun ci kanam dina dellu si waat salaamaaleykum. allo allo. salaamaaleykum. salaam bu baat bi yëkkati ko woon bu baax ñu déggante soxna si. baat bi dafa xaw suufi bu yëkkati ko woon tuuti ñu gën a déggante bu baax. salaamaaleykum. salaam wa waaw. man daal sama sama doom bi moo ma géntaloon benn gént boo xam ne dafa maa a tiital. Mm-hmm. nee na dafa gént ñu yore ndawal yàpp di ko dagg. Mm-hmm. léegi man ma ma ñëw rek nangu yàpp bi jël ko di ko xàmp ak sama bëñ. di ko mm-hmm. xàmp ba mu yàgg rek. sama benn bëñ wadd di naaj. waaw. loolu daal moo ma jaaxal woon. baax na dinañ ci dinañ ñëw. incha allah euh, ñu jël keneen ki ci ligne bi. 88 628 04 05 salaamaaleykum allo allo allo. allo waaw. 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 wala 00 221 33 waaleykum salaam wa rahmatulah allo. allo allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. allo. waaw allo bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum mhm. waaw allo. waaw ñu ngi lay dégg. waaw dama amoon benn gént bu ma doon laajte. waaw. Euh, dama géntoon ma ëmb ba diis. Mhm. waaw may matu nag ñu yóbbu ma hôpital. Mm-hmm. yàlla dogal bi ma demee ma fekk fa yeneen ñaari jigéen yu yuy matu comme man. Mm-hmm. mais ñoom ñaar ay seex lañ. Mm-hmm. mais saa ki ñuy rawale ne leen yéen ñaar dafa mel ni kii moo leen gën a sonn kon dem leen man ma dibbale kii. léegi ni may rawalee nag. Euh, noonu xale bi juddu mais bi mu juddu dafa daanu daanu bu fort. xale bi yuuxu jooy jooy yu metti mu ne ma ah, am nga doom ma ne ko ah sama doom bi dafa daanu mu ne ma mais góor la am nga doom amul benn problème. Mm-hmm. ñu jox ma sama doom ma ñibbi mais bi ma ñëwee dama sentir ne am na beneen doom bu des ci sama biir. Mm-hmm. ma naan waa man dafa mel ni am na beneen doom bu des sama biir de ñu ne ma akkoon ah, ñoo ñoo dellu hôpital ci laa yeewu. Mm-hmm. mais daanu bi xale bi daanu jaaxal na mais dafa jooy jooy yu foor sax. waaw ah, moom. allo. allo waaw papa. waaw bismillah. waaw man dama géntoon sama bëñ yi di wadda. Mm-hmm. waaw loolu laa gént démb aussi gént naa gis étoile filante ma si ñaan sama soxla. Mm-hmm. waaw loolu laa géntoon. étoile filante. waaw ma si ñaan sama soxla. Mm-hmm. waaw loolu laa gisoon ah sama bëñ yi di wadda. di wadda. dinañ ci ñëw léegi incha allah. ok jërëjëf. jërëjëf 88 628 04 05 allo allo allo. allo. waaw sëñ bi ñu ngi lay ziar. waaw ah, salaamaaleykum. waaleykum salaam wa waaw. waaw Pa Abdou Karim laa soxla yoon. waaw moom ngay waxal ni waaw man de dafa am benn gént ma géntoon. Mm-hmm. waaw dama maanaam dugg ci benn euh, mel ni damaa dugg ci ñax boo xam ne dafa muur dafa dem ba presque sama ñax bu ñax bu naat la nii. Mm-hmm. ma dugg ci mel ni dafa dama dem mel ni dafa dem ba egg ci sama baat bi ma xool gauche xool droite lépp di ñax. Mm-hmm. waaw beneen gént bi tamit damaa géntoon benn def si Macky Sall dem nuyu nuyu ci Macky Sall naan ko damaa bëgg boo gagné deuxième mandaa nga may ma visa ma dem France mu naan looy wuti France ma ne ko sama baay dafa màggat sama yaay màggat ci man maa di yor. Hmm, nga ne ko. ma ne ko damaa bëgg nga soo gagné soo soo gagné dama ko wax seen ko xam naa dimanche da nga gagné waaye boo gagné na nga ma may euh, na nga may visa ndax damaa bëgg a dem France mu ne ma looy wuti France. Hmm, hmm. ma ne ko sama baay dafa màggat sama yaay màggat ma bëgg leen a yor ci aw dara. Mhm. waaw loolu laa gént beneen gént bi tamit dama géntoon sama yaay di ma dóor mais dóor bi may dóor tamit dafa boot doom dafa boot benn xale di ma dóor. sa sa yaay. waaw sama yaay bi ma jot te sama yaay tamit léegi dundatul. Mhm. waaw. baax na dinañ ci ñëw léegi incha allah jërëjëf. sanati bi zalika xaalan insha allah allo allo allo waaw soxna si ñu ngi waaw dama kii doon am gént bu ma géntoon waaw léegi dama géntoon ma ñëw sama kër fekk ñu tegal diwloo ma fi ay bagages yu bare mu ngi dafa am ko ko fi dénkaane mais xaw ma kan la kan moo la ko dugal ñuy déplacé bagage yi bagage yi ma dénk sama kër ma ñëw fekk ko fi léegi ñuy déplacé bagage yi ay janax yu bare génn ndaw mm-hmm. di dugg si biir taxaw ma ne ko ma dénk bagage. Mm-hmm. waaw beneen bi temps yële la yàgg na dama leen mënu woon jot. dama mm-hmm. gént euh, di dem dugg war a dugg si avion. mu am ku ñëw jox ma ñaari mbuus. li ma jëlal yóbbaale ko benn bi def mboq ak gerte euh, beneen bi si déem ma dell ma ak gerte bi allo. waaw ma sàrxee mboq ak gerte bi. ma jël si déem bi yore ko yéeg nag ci avion bi dem. ñaari gént yooyu daal laa gént. jox la mboq ak gerte. waaw mboq ak gerte benn mbuus beneen bi ñu def si siddéem. ma jël mhm. mboq ak gerte bi saraxee ko foofu. après mhm. daal di yëg si avion bi yóbbaale siddéem bi di koy lekk si biir avion bi. Mhm. waaw loolu daal laa gént bu jëkk beneen bi nag janax yi nag moo ma jaaxal mu ñëw ay bagages yu ma dégg fekk ma fi. ma ñëw dara leen bagage ñu koy randal janax yu bari génn di daw. si biir kër gi waaw ay janax yu ñëw. waaw ñaari gént yooyu daal laa xamul. dinañ ci ñëw léegi incha allah 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 salaamaaleykum allo allo. allo. allo. oui salaamaaleykum. waaw doo yëkkati baat bi tuuti ñu gën a déggante bu baax. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. oustaz man de dama géntoon. Hmm? ma ne dama géntoon di sëy benn tubaab. Hmm. waaw may sëy tubaab bi ba mu yàgg ma yàq sama tubéy hmm. dugg avion di dem tubaab bi mais nekkul sama jëkkër. nga dugg ak ci avion. waaw man ak moom ñuy dem. Euh, quatre vingt huit six cent vingt huit zéro quatre zéro cinq wala 88 628 65 65 ñuy xaar mbokk yi ci ligne bi allo allo nahnu nashkurukum gaayata shukri li xusni mutabaatikum maana fi kulli yawm aljumaa asalaamaaleykum allo allo waaw bu baat bi yëkkati ko woon bu baax ñu déggante allo nahnu la nazalu fi intizaarikum kal aadati bi diqqatin wa sururin fi barnaamijikum tafsiru al axlaam fi kulli yawmi al jumaa salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam allo allo mbokk mi ñu ziar bismillah Hmm? waaw dama woote woon si Siri la nekk sax. Siri woote woon pour euh, jox leen sama gént. bu baat bi yëkkati woon tuuti mu gën a déggante bu baax. dama woote woon pour jox sama gént. ah. gént dama géntoon quoi. waaw. Euh, ma dugg ci benn oto. Mm-hmm. oto bi nag camion la oto bu mag mais oto bi daal port la ma dikkee port autonome de Dakar. Mm-hmm. léegi mu ngi taxaw ci biir ndox mu bari. Mm-hmm. léegi alo waaw. léegi ñu ñu yoor ma ci ndox mi ma war a cëppeelu uh, am benn test bu may def test boobu ma ko jàllee après dañooy jël. ñu yor la. ñu dugal la fan. ñu wàccee ma ci oto bi yoor ma ci biir ndox mi ci biir ndox mi. ndox mi ñu yor la ci biir ndox ne ma léegi soo jàllee test boobu dañu lay jël pour nga liggéey. waaw. léegi biñ ma yooree nag ndox mi bari fekk ci i nelaw laa nekk bi biñ ma yooree ndox mi bari bu ma ma fa takk sama rek. ba mu dem ba ci biir léegi ma commencé sol ndox ci laa yeewu ne bërit yeewu bi ma yeewoo daal ci laa ci laa doog a xam ne noonu ñu dama doon gént. Mhm. waaw waaw. waaw. baax na dinañ ci ñëw léegi incha allah. shukran. 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 salaamaaleykum wa rahmatullah. allo allo allo waaw su fekkente ne euh, euh, ligne bi euh, jafewul ñu ngi koy xaar ala kulli xaal ñu bàyyi xel ki ci liñ bi te ñëw ci bataaxal yi bataaxal yi nga xam ne fekk nañ ko fi. Euh, ñi ñëw ci bataaxal yi nga xam ne seeni borom yónnee nañ ko fi di ko laaj euh, beneen bu ci jëkk mooy mbokk mi dafay laaj laaj bu ko yéem nee na in gis na boppam ci benn dëkk mu yëg ci montagne bu kawe gis fa ay gaynde al asadu ru'yatuhu xayrun wa barakatun wa yusrun wa man raa nafsahu ala cheyin aalin fa dalika taqaddumun azimun fi xayaati nit soo gisee sa bopp fu kawe yokkute yokkute bu rëy la amaa nag waaw euh, yokk yokkute bu rëy la ci dundam wa ala kulli xaal montagne it nekk fa am na solo euh, beneen bi nee na dafay gént ñuy yónni ko ci benn waay waaye mujj koo gis ba man koo jox liñ ko yóbbante loolu baaxul yaakaar bu bari xat-xat la nañ ci bàyyi xel beneen bi mbokk mi ne dafa gént ñu jox ko yàpp imma muy bu ñor wala bu ñorul allahma qulna dalika miraran wa takrara ru'yatu lahmi maradun xatir fi jismi l insan yàpp wéru yaram la nañ ci bàyyi xel moo bu ñor ba wala bu ñorul bi kilaahuma ala xaddi sawa beneen bi ci tegu mbokk mi neen dafa gént mu mu ëmb mu dem hôpital fekk fa ay jigéen yu war a mucc comme moom nee na ñu ñëw dind ñooñu dugal ko nee na bi muy mucc sentir na ne daal doomam dafa daanu daanu bu metti ba jooy jooy metti nee na mu jël doomam di ñibbi dem ba ci yoon yi ne moom dafa mel ni benn bi doom dafa des ci biiram waaye mujjul génn ñaari mbir yu doy la yu bokkul benn yoon jëmukaay al ibnu allazi saxata ala al ard wa huwa tiflun saxiir xale bi daanu ba jooy jooy yi mbëgte la isa kabira sa yakuna xaniyan doom jooju de su màggee dina nekk ku yàlla baaxe ku na war ku nar a bari xéewal moom doom jooju daanu ba pare jooy te dara jote ko ñaareel ba li gënul nag ba gënul mooy doom bi nga xam ne bii des na ci biiru yaayam te génnul maa fi zalika xayrun boobu daal moo gënul nañ ci bàyyi xel euh, beneen bi kii ne dafa gént benn biddéew euh, nee na biddéew bi daal euh, daf koo gis ba pare moom mu tàllal loxoom di ci ñaan waaye li mu jëkk a gis mooy beñ bu dañ soquutu sinni xul naa zalika miraaran bëñ bu deñ nit ku wàññeeku la imma an yakuna baidan am qarib bu jege walla bu sori waaye sa saa yoo ko déggee rek jàppal ni leen la annoncé nit ku génn àdduna ama gis bi ñaan ci yiw la am na solo nañ ci bay xel euh, mbokk mi beneen bi ci tegu kii ne dafa gént ñax mu bari ñax mu tooy moo gën ñax mu wow anchebul yaabis min akabiri soobati fi xayaati al insaan ñax mu wow baaxul ci jafe-jafe yi gën a tar ci la bokk nee na gis na président de la république muy wax ak moom ne ko dinga soo jëlee soo gañee nag ma jox visa ma tukki ñaar yëpp baax na gis ru'yatu raisu la gis borom réew mi baax na mu jox la visa baax na mu accordé la ko it xayrun wa ni'matun ñaar yëpp a baax euh, beneen bi mbokk mi ne dafa gént ay bagaasam am yi mu génne gis ci ay jinax jinax ci biir bagage baaxul day tax sa am am day bari sooxe sooxe loo dugg mu yéex loo yaakaar mu tas loo amit du toog sa loxo ni muy ñëwee noonu lay demaate mooy ay jinax yu bari beneen bi neen defa gént dugg avion euh, avant muy dugg avion wala ci biir avion bi ñu jox ko gerte ak mboq ak siddéem ñetti mbir la yoo xam ne bi ñaari baaxul benn bi baax na bi baax mooy mboq alqamxu aksaru faida min alfustuqi mboq moo gën gerte ak siddéem siddéem ak gerte xat-xat baaxul kii nag moom dafa génn na dafa gént di sëy ak nit ku weex tubaab baaxul mbiri àndandoo la du gën nañ ci bàyyi xel waaye waxoon nañ leen ne yooyu bu dikkalee nit na bàyyi xel ci ne ala kulli xaal war na jàng guddi gu nekk wa samaa wa taarix wala wala mu jàng wali suleymaana reyxa guduwaha shahr bu ci nekk fukki yoon ak benn kii nag nee dafa gént dugg ci oto euh, dugg ci oto boo xam ne bii oto bi dafa mel ni dafa am jafe-jafe oto boo ci duggee puus ko tàkkul baaxul nga taal ko tàkkul baaxul nga daw ba si yàgg mu paan baaxul amaa nag dugg ci ndox di feey baax na ñu yor la ci biir ndox mu bari xayrun wa ni'matun wa yusrun xéewal la alal la nañ ci bàyyi xel mbokk yi dañu jégalu eh, waxtu yi moo ñu def rek ñu ngi koy jégalu bu baax a baax a baax a baax eh, di ñaan yàlla incha allah ajuma bu nekk lépp lu ñu manqué le dinañ ko mottali ci yeneen ajuma yi di ñëw ñu ngi koy jégalu bu baax ñu ngi ziara kóllëre yi ñi bàyyi xel saa su ne di ziara Adja Jëliya Sall Amina Tawat Soxna Ba Mati Ba Malick Ba Ndiku Fall Adama njaay Mansour Sarr maam lii su ñoom ñu fàtte woon ñeen mbay Mbaye Medina mbay mu jibu lay aada euh, moo di njaay docteur Pouy Aminata Touré Bintu Niang Bachir ci Mauritanie ak soxnaam Thiané Diagne ñoom ñëpp fàtte wañ leen waaye di ziara ba tey it sunu xarit euh, sunu couleur rose ci France ñu ngi koy ziara soxna maam Aram Mbacke ñu ngi koy ziara fii ci Sacré-Cœur 3 euh, soxna mam Aram Mbacke Sacré-Cœur 3 ñu ngi koy ziara waaye di ziaraat euh, ba tey sunu xarit Abdoul Aziz di ziara Elisabeth Sagna monsieur Sagna Abdoulaye Ndiaye sunu xarit ñu ngi koy ziara. ndey ba ci Dakar Cheikh Ahna Soumaré Alaaji Malick Kayre North Carolina aux États-Unis ñu ngi koy ziara Babacar Émirate eh, ñu ngi ziara Aji Sané ci eh, eh, Aji Sané Detroit Amérique ñu ngi koy ziara bu baax di ziara Mouhamadou Moustapha Yaali soxnaam ñu ngi koy ziara bu baax Roxiyatu Diouf ci Yoof Ndëngañ Roxiya Diop Daouda Dia di ziara Pape Gallo Badiane Adja Soxna Mati Diaw cité des magistrats Salima Sem cinquième ca Nouakchott ñu ngi koy ziara euh, Soumaré monsieur Soumaré ci Turquie ak soxnaam madame Soumaré ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziara di leen bàyyi xel di ziara Cheikh Mbacke Bare Fadilu Ndindi Fatou Silla ñu ngi koy ziara ak doom Awa Mbacke Alima Touré Alioune Niang ci euh, cité barrière li ñu ngi leen di ziara ñoom ñëpp fàttewuñ leen Yacine Thieppout Adja Khadisi ñoom ñëpp fàttewuñ leen Eh, di ziara di ndokkeel ñëpp ñi nga xam ni dañuy bàyyi xel saa su ne ci waxtu wi yi ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm allahuma rabbi samaai wal ard yaa man kasa qulubul aarifin min nuuril uluhiya allahuma yaa man huwa ilahun fi kulli makan allahuma rabbi yaa man ismuhu la yunsa wa nuuruhu la yutfa wa mulkuhu la yaxuul wa arshuhu la yadul wa kursiyuhu la yataxarrak ilahi allahuma rabbi xaqiq lana amalana ya ilahi wa tammim lana niyatana waqdi xawaijana zahiran batinan ya rab innaka ala kulli cheyin qadir allahuma rabbi samai wal ard la tugayib rajai wa rajaana wa rajaahum wa rajaa jami almuslimin wa salli ala nabiyika wa xabibika wa rasulik salaatan taftax lana biha abwaab arrida ilahi wa taysir wa tugliqu anna biha baba char wa taasir wa taqdi lana biha jami alxawaij wa takuna lana biha waliyan fi dunya wal axira ya rab ya ilahi anta waliyuna fa ni'mal mawla wa ni'man nasir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin